Euh, wala mu fi jaar ndànk-ndànk loolu nag atte bi yéen ñi jëflante ak moom mbégte bi ngeen ci am foofu la atte bi di jóge kooko di kan euh, tur bi nag xaw na laal ci turu naar yeeg yooyu yëpp mais dinañ ci laaj sëñ Seex Faal Xataaba sëñ Seex Faal Xataaba laal na ci Baay Faal laal na ci naar laal na ci yëpp sëñ Seex sëriñ Seex Faal Xataaba nag euh, yàgg ngeen ko gis ci mbir yi mais man nag dafa am kilifa goo xam ne que nag ku am xam-xam bu ñëpp nangu am xam-xam mu may wax ne ma musuma laa booleeg sëriñ mais kii ma lay booleel euh, dama am yaakaar am yaqin ne kuy jariñe la du kuy lore moo tax ma euh, gën a am fit euh, yaakaara sawar ci toog ak moom ndax man li ma bëgg li naan ku yokkul dangaa wàññi kon jàpp na ne moom dina yokk sëñ Cheikh Fall Xataaba yaa ngi ci Tektal TV sa télé émission Tektal sa émission looy nuyu àdduna wërngal këpp bi lay seetaan. aouzu billahi mina seytaani rajim aouzu billahi bismillahi inna waliyallah barki xaddim rasul sëñ ñoo ngi lay siyaare di siyaare mbooleem kuy jàkkaarloog sunu jëmm rek di ñu seetaan di ñaan ci réew mi jàmm di ñaan suñu borom buur bu màgg boobu nga xam ne lu baax rek lay def mu defal ñëpp ak mucc ak barke. ak jàmm di la bu baax yàgg a teewlu sa mbir yàgg am yéene togg ak yow waaye lu jot day daal di yomb suñu boroom dogal tey jii ñu toog di ñaan yàlla bu mu doon suñu mujjug toog te lépp lu ñu fiy waxtaan yàlla nay xam-xam tey njariñ di doo xam ne dana jariñ jullit yi ak képp koo xam ne doomu aadama nga buy dox ci kaw suuf Euh, jërëjëf euh, sëñ Cheikh Fall euh, Xataaba gërëm nañ tamit sëñ Am Diop sëñ Am Diop bu nekkoon Touba TV ak Sen TV gërëm nañ ko moom mu ñuy wax lu baax ci yow doon borom xam-xam wax dëgg yàlla ñu xamkaay at mu sedeel ma lu baax ci yow ci sa xam-xam ak yépp sëñ Am nuyu nañ ko ak Bougane gee Dany ak Momi ak ñoom Soda Mbaye ak ñépp daal wax dëgg yàlla sëñ Am ci kaw sas na ma daal sas na la parce que daal fi mu yóbbu sa njàmbaar ci liggéey bi kawe na te dama ci am yaakaar bu baax a baax te man moom euh, li ma bëgg mooy ci ñi seetaan tegtal sax extérieur léeg ñu envoyé ma benn lien ne ma fexeel invité kii léeg ñu envoyé ma benn lien ne ma moytul invité kii parce que ñun central lañ ci liggéey bi euh, moo tax duñ fowe te témoignage buñ defalub sëriñ euh, man na ko yokk lu ne moo waral duñ fowe mukk témoin lu dul dëkk lu gis muy dëgg rek dañ ciy ñeme moo tax léegi nag yow comme internet bi léegi ku ne ngi ci lu ne ngi ci mu bëggoon xam yow wàllum faj ak ñaan loo dond la loo jàng la lu la yàlla may la wala aw fit la wala da ngay wut xaalis wala dafa xew nga ne xaar nga dugg ci ko lan moo la ci dugal ak foo toj daal bon doon wax yaay kan euh, noonu exemple tegale euh, expliquer sa bopp yaay kan. barakallahu suñu Cheikh <laughs> kontaan nañ ci question bi. Hmm. waaye da di mbir moo gis ci àddina. Hmm. mu xew rek am na lu waral mu xew. am hmm. da di jamono bii nag ñaan dafa xew. Hmm. waaw jóg rek ne ñaankat laa dafa xew. Hmm. waaye am na ñoo xam ne nii tey buñ ne leen woon lan mooy seen cosaan ci àddina amuñu beneen métier buñ mën a def wala buñ war a def bu dul ñaan. waaw. loolu nag suñu borom defal nañ ci tawféex. ndax sunu maam ji nga xam ne moo ñu meññ ñu tudd ko. tey jii ñu doon kutaayam ci kaw suuf ak sunu waajur yu fi nekk. suñu boroom dogal na lii di Azrar. dëkk bee mu dëkkoon di Touba. ñi ko xam xam nañ ci moom ne def na ci loo xam ne nii. maanaam du lu nit mën a waxtaanee ndax da ciy egg ci niveau boo xam ne. boo ko doon wax sax ci jamono bi am na ñoo xam ne mën nañ ko diingat wala ñu weddi ko ne loolu mënta ne. ngir lu ne def na ko ci muy sëñ Cheikh Fall Xattaab ku ne xam na ko te bi mu fi jógee yàggut ñi mu doon dundal jamononte ak ñoom ñi ngi fi tey jii boo taxoon no xataa waxtaan ak ñoom laaj leen kan mooy sëñ Cheikh Fall bu ñu la waxee mooy kan da ne mbirum sëñ Tuubaa dana la gën a jaaxal dana la gën a yem ndax mbiram ni mu lëmoo ak jëf ji mu jëf ci kaw suuf kooku nag la yàlla dogal tey jii ñu tooge palaasam ñu tudde ko mooy sunu maam nga xam ne lii ñu nekk ñun mm. xëy rek jóg xew ñu dem na ci dañ ciy judd ba ñu xëyee ba fii may wax ak yow mosuma am métier man. mosuma ministre mosuma ñaw mosuma am mosuma am métier moo xam ne nii maa ngi koy def ngir dara lu dul jàng alxuraan xasaayit ñaan yàlla. Hmm. kon daal bokkoo ci sëriñ si nga xam ne ko danoo bàyyi ba ay jékki-jékki rek. gis ne am fu nu waxee yomb na léegi ñu dugg ci TikTok bi rek commencé defi live ak yooyu. man réseaux sociaux boolewuma ak ñaan. boolewuma ak ah, dafa dem ba réseaux sociaux dab ma ci biir ñaan. Mm-hmm. ndax ay nit ñoo xam ne ni nga ko waxee léegi sëñ am mi ñu boole. Mm-hmm. ak ñeneen ñu mel nekk ñoom. Mm-hmm. ñooy toog ba mu yàgg ñi am yëg-yëgu naa génn ndax toog bi may toog ci bitti ci biir bu ma génnee xëy na nit dana ma gis waxtaan ak man jariñu jariñ loolu lañ yéene nit ñi nag sama jëmm moo waral ñu génne loo ma ne moom foofu laay waxee da tey par exemple euh, nan laa ko mën a expliquer génn ci télé bi moom gari jëriñ junni nit dafa gën toog sa kër jariñ téeméeri nit te mënuma d'accord na nit ki di dund ba deux deux mille mille vingt 2024 génnul rek aay na mais bis bu xasee génn rek aayatul bu dee mësul ñëw dakaar aay na bu ñëwee dakaar rek aayatul xeet yooyu ay waxu yu tegewul la quoi. lu tax loolu mënta ne. Hmm. gis nga ñi man ñi mënul rek bu fekkee ñooy génn àdduna tukki. Mm. waaye toujours da ngaa war a jàpp ne. Mm. saa boo gisee ku mënul tey suba yàlla mën naa def ko mën. Mm. te mbirum ñaan yàlla nag yàlla du nit dañ koy poñe naan ko defal. yàlla moom da ngay ñaan ba mu mën a nangu rek nangu. am maa jëmi ne kii ñaan personne bi. li yàlla di def ci jëmmam. ci ragal yàlla yàllaam. ci sellam. ci nangoo jaamu yàllaam ba jege yàlla jege yàlla gu toll ne bu nekku allahuma mu wuyu ko. loolu nit ki la. loolu ñun nag li ñu suñu borom dimbalee mooy xal wu gëmmu la ñu. Mm-hmm. xal wu gëmm nag booy upp rek daa muy muy bay. waaw dafa am loo xam foo xam ne meññeet moo xam ne boo fa jógee. Uh-huh. waaw dafa am loo xam ne boo ca bëggee dox rek suñu borom da koy mën a gaaw a jàppandal tabaarakallaa. macha allah kon bindal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit euh, bët bi neexul kiy dox ci mbedd mu dugg ci biir. Euh, tegtal mooy daw Serigne Cheikh Fall Xataaba bindal ma ko ci écran bu baax a baax moo ngi Touba ak Nord Foire fu mu ci man di doon rek insisteel woo ko boo ko woo fu mu ci nekk rek mën na la fii la nekk même bu dee mënu la gis léegi jumtukaayu jot say bagage moom yomb na euh, mu fekk la ba fa nga nekk euh, loolu yëpp lu mën a nekk la bu dee bitim réew nga nekk tamit fi nga tënkeek ak moom rek wutal GP jox ko ko bu soobee yàlla say mbir du taar ay mbiram du tardé ci yow bu baax a baax dafa 77 102 102 nag ku déggul daaj te mu bindal la 122 1 ak 0 ak 2 la 102 ah 77 102 94 euh, 9 ak 4 94 encore 9 ak 4 77 102 94 94 Serigne Cheikh Fall Xataaba nekk ci Touba ak Nord Foire nga dis ko soxla mu ci man mu def ko leen ñu bàyyi yàlla mi xam tëliwul dara te mën na lépp numéro bi am na WhatsApp euh, bu jël sa àddina bi yépp nag nga defal ko ko ci benn ojo day diis boo ko audio mu yéex a tontu tamit dollil ba ne ndax mu féete kaw ndax ku ñu su bari soxla moom da ngay comprendre bu baax a baax a baax a baax ñun nag leen man ku am indi leen di ñaan yàlla ngeen amee ci lu kawe njor Tektal moom euh, du kuree fii toog du nene leen fii toogee dëgg daal ku ko yor mën nañ ci continuer ku dem ba nga xam ne que nag sa dëgg wàññeeku nag yàlla nga ma réer bu ma la gisati bu ma bu ma gisati ba ma la invité ti ndax danga may tegi co coono bu baax a baax a baax sëñ Cheikh Fall ba wàllum seet seet moom noo def moom seet gis nañ ne sëriñ su bari ni ñu seetee aw fit da ci xaw a am quoi ndax gis naa ne man mii bu doon mën na ma am fit tuuti mën naa seet parce que tey euh, yaa ngi yaakaar muy tas yow dara sunu la lu dul cet euh, bu dee góor la ñu ne ko yow say soppee jigéen ñi la bu dee jigéen ñi ñu ne ko yow góor ñi ñoo la gën a bëgg yow mënoo am lu daje xam ne sa leeru Sénégal yaa ma gën a xam mënoo réaliser lu bari yow gis na ne sa loxo dara du ci toog gis na ne tamit euh, am na ku lay wor ah nit di déception ci dë àdduna bi leen ko fekk quoi maanaam tey yaa ngi jàpp yoon dem tuubaa sax jàpp yoon la est-ce que comprendre wax ngay mer lu bari ku li mu bëgg moom du bëgg lu bari xam nga tax bu dëgër bi ñàng toote léegi yii nii sëñ bi man day mel ne man moo amoon tuuti xaw naa ko man quoi waaw waaw léegi nag xam nit ñi xam soxla yi nit yi wàll <laughs> léegi nag foofu laa bëgg na seet bu wóor boo xam ne que doo nekk di laaj nit ki muy tontu non yow sax degré seet boo ko doon natt fu mu toll. waaw xam nga seet moom suñu seex. ni nga ko waxee léegi nii. Hmm. bataille psychologique bokkut ak mën a seet di seet. mën a seet di seet. parce que seet dafay yàgg ci àddina. di mbir mu wér nag doo ay caaxaan. bi sëñ Tuubaa demee ci géej gi sax tubaab yi bi ñu jaaxlee ci moom mun nañu làbbe seet loo ko mbirum sëñ bi. kon seet yàgg na fi. ba ci jamono yonent yi ba tey. waaye seet yi fi xew ci réew mi jamono bi ñu toll dafa bari. am ñoo xam dañuy def ay ramlu. ñii dañuy def ndox. xottu gerte sax am nañu ciy seet. ñii pettaaw. am ñoo xam ne nii kenn ku nekk sa façon seet gi ngay seete waaye ñun seet gi ñuy seet boo ñu woowee téléphone bañ déggoog yow ci wàllu seet bu buñ lay seetal dañuy jubal facilement ci sa itte li la tax a jóg tax xam nga nit ki toog ba mu yàgg moom problème ci mbir sàngam pour daaneel la sax da nga ko koy waxaale xam ne yow mii moom pour wax loo ma lu xam nga kiy seetal nit ki di ko laaj kooku mënta seet di seetal nit naan ko iska nangam wala nangam ji ndax nangam loolu du seet Mm-hmm. man du ma seete noonu. waaw boo ma woowee téléphone. Mm-hmm. bu fekkee mënoo ñëw woo ma téléphone foo mën a ne ci àddina dama naan la fotol sa loxo ndeyjoor bi envoyé ma ko. fotol loxo ndeyjoor. waaw digg loxo. <laughs> lii mooy empreinte bii ngay gis nii digg loxo. waaw man ci laay seete. Hmm? boo ko fotoy nga envoyé ma ko. waaw ma woo mm-hmm. la. li ne ci yow wax la lii sa itte wax la fi nga toll. ah kon jërul ay turu yaay ak papa ak may wax turu ak papa lii ma laa soxla lii moo gën a garaaw turu yaay ak papa ci doomu aadama. kon nopp dalooti na. xam nga tubaab yi tey boo demee ñoom emprunté nii. trouvé nañ ci loo xam ne dem nañ ba xam ne kenn bukkaliwu ko ak sa morom ci ba léegi dugal nañ ko ci digital muy dox ci lépp. di ubbi sax ay oto. ñu man ci ubbi téléphone man ci lu ne xam nga. léegi nag lii. secret bi ci yàlla def ak mbóot mi nga xam ne moo ci nekk bu ko nit ñi xamoon. tubaab bi xëy na dañ leen ko njëkk a waaye ñun ñi nga xam ne yàlla suñu borom dimbali lañu lii ñu ci xam nii di ko def ci seet jógewul mm. Sénégal mi ngi jóge Inde xam la bu wér boo xam ne nii doo ci wax nit mukk mm. muy am lu muy sikk sàkk wala lu muy xam ci seet kon mën a dégg daal yow président euh, président Sénégal bii ñëwaat ni xam nga ko mm, Cheikh wax dëgg yàlla fii may wax ak yow nii du mën a leen benn mbindeef mën na ma ko dàq ci kaw suuf fii ci réew mi réew mi waa sama seet moom maanaam kii moo ko séqal rek moo ko ndax bis mu seen moo wax nit ci boppam loo xam ne xamoo jàpp na ne moo yàllaa ko xam waaw lii waral may seetal nit mu tàggoog sagoom di tuur ay xéwal loolu du ay waxi caaxaan du ay waxi caaxaan kon daal seet moom de euh, muy jigéen buy bëgg a dugg ci góor ak góor buy bëgg a dugg ci jigéen di xel ñaar baax naam baaxul jig na koom jigu ko xet boobu yépp kon képp ku bëggub seetkat bi numéro baa ngi nii bindal naa la ko nga bàyyi ko xel bu baax a baax a baax sëñ Cheikh Fall xataaba nga ne daal seet moom kon euh, ku ñëw bëgg. loolu amul werante <laughs> mboolem xeeti itte yi nag. waaw mooy nga am bëgg jigéen bëgg ko takk. wala góor gu bëgg a dugg ci sëy wala ku bëgg a tukki. di xool saw yoon wala ngay jënd kër. waaw ah, te loolu nag nit ñi war a la muy wàllu terrain. wàllu ndax bare na nit ku gàllankooru bërëb ba mu jënd. Hmm. tàmbali koo liggéey moo ko gàllankoor. ndax àddina bi ñun doomu aadama yi rek néewuñ fi. dafa am ñeneen ñun fi nekkal te ñooñu dañuy ne ci bërëb. boo jëndee bërëb ñu nekk nag te xamoo ko xooloo ko ñëw rek tàmbali def ay say liggéey yooyu yàlla mën na cee def ndogal yoo xam ne nii mën na laa sonal lool ci sa àddina. mais lan moo tax tey par parfois bu dee da nga dégg ñu ne bërëb bi jigul nit ki te nit ki mën naa jënd xaalis rek ñëw natt rek wuti maçon yëpp commencé fondement commencé tabax lan moo war borom kër gi am problème te maçon yi ko tabax moom du problème. xam nga tey jii mbir moo gis ci àddina. Mm-hmm. dafa am koo xam loo xam ne mooy nday ji. mooy sa kër gi tey ku fi ñëwoon. Mm-hmm. problème am ci kër gi kenn du jël sa soxna yóbbu moo ne moo la fi gën a sañ. waaw moo la sa kër gi yow. Mm-hmm. li fi sa soxna def yow defoo. ah comprendre naa di nga dégg léegi ñoon président bi rey na ñaata nit te président bi du takk sax deret comprendre. ñi dee ci réew mi lu ñuy wax. Sonko ñi dee ci réew mi lu ñuy wax lu ci seen yoon. ne duñ koy def ba ñuy rayante nit ñi moom ñoom ñu ngi toog waaye cause bi. loolu moo intéressant mmh. léegi yow comme ku mën a seet nga def président Sénégal bii di ñëw moom ab làkkat la ab wolof la ab ku njool la ku xees la ku gàtt la wala 2024 gis nga élection. 2024 bii. maanaam comme yii euh, xam nga gars yi dañuy wax ne dañ koy pousse ak duñ ko pousse. waaw loolu moom xoolaguma ko. xoolaguma ko mais gis nga keneen président bu bees wala gisoo président bu bees. président bu bees moom gis naa ko. gis mhm. naa ne réew mi dana sotti ko nag. waaye nag histoire dana amaat balaa yàgg ci lii lu mel ne lii fi jóge woon dana amaat. ah xeex day amaat. waaw ah, xeex mhm. Mhm. président bi amaat côté Thiès région de Thiès lay jóge wala région bu Saint-Louis wala bu Fatick wala bu Casamance wala Qatar wala. <laughs> <laughs> yàlla doon bu Qatar. Ah, yàlla na ko doon waaw. Ah, ah, léegi moom fi nekk moom ñaanu làmb yëpp moom boo dee amil sax am problème billaay <laughs> ayoo daal mais mais kon daal Qatar moom ngay ñaan. moom laa bëgg waaw mais jëlu engagement la. non jëluma engagement ci bi kenn doon président. Hmm. ok ëllëgu Macky Sall loo gis. ëllëgu Macky la. rafetuma ci njort de. wax dëgg yàlla. Hmm. ah da ko tiital daal. trop sax trop. parce que def na jëf yoo xam ne nii. dansé na dansé goo xam lu ne mën naa am ci biiram. te yàlla day buur bu màgg boo xam ne seetaan na lu ne. Mm-hmm. askanu yonent bi ñoo gën a riis ci àddina. te dafa seetaan sax ñi rayante seen biir ba jeex. Mm-hmm. kon mën naa seetaan lu ne. Mm-hmm. moom nag seetaan na ko mu def lu ko neex mais ëllëgam. wax dëgg yàlla euh, rafetuma ci jort daal. rafetuma ci jort même instant bii nag bu tegee lépp luy fitna ci suuf indi jàmm ne. maa leen digoon lii génn naa ci maa defoon lii maa ngi jéggalu delloo leen seen réew ci njëkk. su amoon. man nga cee rafet njort. waaye damaa gis ci moom muy nit koo xam du dellu ginnaaw. bay tey lu mu ŋànk ñaaree day dagg. te loolu musiba la ci nit. waaw nit saa boo xamee ne yaa ngi dem muy metti da war a taxaw. waaye muy dem ngay dem muy gën a metti nga continuer di dem. da nga dem ba mujj dootoo mën a dëpp dootoo mën a dem. waaw. Mhm. kon yàlla yàlla def jàmm bu baax a baax a baax ëllëgu Ousmane Sonko nag loo ci gis. Ousmane Sonko ku rafet ci moom njort laa. Hmm. bu jëlul réew mi tamit. Hmm. maanaam lu tee yàlla suñu borom jox na ko dara ji ak pouvoir bu toll ne mën naa dem ba kii yilif réew sax mu yilif ko. mu yilif ko ah kon mais yàpp yaakaaroon na 2024 mu falu quoi. loolu moom xooluma ko bay xam ndax war naa mën a. mais dina dugg kaso wala du dugg kaso. kaso rafetuma ci njort de. Ah, yaakaaruma ko de. waaw ak duggam kaso moom yaakaaruma ko. Hmm. wala bu fa duggee du fa yàgg. ndax du nit nit ku yàlla di teg fin finna bu doy waar ci àddina hmm. ndax nit la koo xam dafa am cërub yàlla. Hmm. nit ñi nag xamuñ loolu boo ko xam nga nit ñi moom boo dee sol ji nekk simis jàpp nañ ne yaa ngi ñoom a yam waaye nit ku ne am na lu suñu borom def ci moom. te moom am na lu yàlla def ci moom bu wér ci ko xam ko am basaratul xal bi nag da ko xam. parce que da ngay dégg ñu naan sonko ku ko songu sànku ba pare. mu dem ba mu mel ne loolu day doon dëgg daal léeg-léeg nit ñi jékki-jékki di am jafe-jafe ci mbiram daal ci ñuy dal si kawam kon loolu maanaam du duy càngat du dara daal mbirum yàlla la. mbirum yàlla Cheikh am na loo xam ne nii yow mii. buñ la ko sax xam nga ko. état Sénégal ak waxi nit ku ñuul ak waxi sénégalais. ñaata at nga di ko gis di gis seeni mbir bañ dalay jóg ci moom ba tey jii ndax gis nga lenn ndam lu leer luñ am ci jëmmam gisagoo ko. ba noppi nag. tuuma ju dul dëgg. tuuma ju dul dëgg. Cheikh Ibrahima Fall nee na dafa bokk ci liy yëkkati góor ca yàlla. Mm. te dañ koo tuumaal tuuma joo xam ne yàlla suñu borom mi nga xam ne nii sax moo koy tere. Mm. daa fexe ba impossible muy njaaloo mm. yow nga mën koo tuumaal nit ci réew àddina sépp di ko coow guddi ak bëccëg ñi naan nangam ay nit dee ci lu ne xew bañ xëy ne loolu amutoon. indi li ñu leneen lu kenn xamul. yooyu yëpp ci xeetu maanaam tawféexam ak. cirub yàlla bu ne ci moom a tax yàlla di ko di leerale mbiram nii ci nit ñi. kon daal yàlla yàlla def jàmm bu baax a baax muy Ousmane Sonko di Bougane Gueye Dany di képp ku bëgg a defar Sénégal te yàlla tax daal yàlla la yàlla yëkkati euh, képp koo xam ne da bëgg yàq Sénégal tamit yàlla na yàlla toroxal ci lu gaaw ba nga gis ko ñaari ñaan yi moom sañ naa ko ñaan moom ku bëgg a defaral Sénégal lu baax yàlla na ko yàlla antul ku bëgg yàq Sénégal yàlla na la yàlla yàq ba doo ko tal bu baax a baax léegi comme gis nañ ne fii Sénégal léegi euh, dem kaso moom defe naa kii ku euh, gisu car rapide gën a yomb léegi maanaam euh, dem kaso mu gën a yomb dugg car rapide daal ndax léegi ku bëgg mucc ci wàllum dugg kaso kaaraange gi wóor goo xam ne ka moom kaso di nga ci mucc bu dee ko fa nekk dina génn loolu loo ci moom. loolu moom baarakallahu yomb na. Mm-hmm. te di Sénégal nag fi dafa jafe ndax barki dem maa ngi dégg ñi corrigé Cheikh Bara Ndiaye ci wax bu mu ne. am na ndomba goo xam ne ku ko takk dugg kaso. loolu lu wér a wér a yàlla ko suñu borom génne fa mu ne sama xarit la nit ku baax la borom xam-xam la. Mm-hmm. waaye nit ki mënoo dëkke takki ndomba. waaw. du dëgg moom bi ñu koy jël si fu ñu ko fekk ak ban waxtu lañ ko jël. Mm-hmm. loolu la nit ñi war a xama xalaat ba pare. Mm-hmm. Cheikh Bara police njëkkut ñëw këram keroog. ñëw nañ fa maintes fois am na boo xam ne ñoo ñëw fekk mu toog ci saalam bi ba tey yóbbuwuñ ko ñëw nañu fa ay yoon yoon yóbbuwuñ ko te lii ma lay wax nii moom bu boo ko laajee mu wax la ko ñoom dëkkal boo leen ko laa wax la ko waxtu wi ko jël si ak heure bi ñu ko jël si dañ ne jàmbaar dafa am heure bu ñu koy daaneel uh, waaw nga xam nga fajar ba nit ki toog ne ci yàlla sangu ba set jàpp ba sell yor kurusam kooku du takki ndomba du waajal boppam waaye ah, Cheikh Bara bu waajee mel na mu war a mel toog ko. Mhm. police mënu ko jël këram ku dul sax mënu ko faa jël. kon ñëw nañ si ko. ñëw nañ fa ay yoon. Mhm. pour bëgg koo jël si ñëw nañ fa itam indil ko ay waxe yoo xam ne du waxe dara. Mhm. ba mu waxee ñoom dañoo dellu. waaw waaye loolu koo xamut mooy wax. gis nga kaaraange ak gàllaaj. dafa di mbir moo xam ne nii képp koo gis mu koy dingat amul xalaat amul xam-xamu àddina ndax mooy doxal àddina hmm. àddina gàllaaj moo koy doxal hmm. ak chiffre ak ak ak ak ak temps waaw yii la suñu borom composé muy doxal àddina bi. kon ñu ngi masawu soxna Kati bu baax a baax ak euh, Sidi Mokhtar ak soxna May léegi yow kon daal yow euh, kaso ku ci bëgg mucc yow loo ko def ndomba wala am nga beneen pexe. am naa pexe mu dul ndomba am naa ndomba. am kon daal ci wàllu kaso rek. kon daal ma la leen ñi nekk ci bitim réew di jaay li ñu tere yëpp bu ñu amee mën nga leen fexe ba duñ dugg kaso. ñooñu ak kuute laa leen liggéeyal. Ah. maa ngi koy liggéey nii am na xam ne am nañ ko. Hmm. dañuy def ay trafic ak yooyu. dañ may wax seen bopp damay trafic lañ may wax. Ah. kuy trafic ne ma damay trafic nag lii laa bëgg mën naa tama man ci dara dama la koy defal. waaw ñoom liñ bëgg ñoom mooy mooy fexe ba police du leen jàpp léegi nag ndomb gi may liggéey man kuute la tudd. tey boo toogoon fii wuute wuute. waaw mooy kuute tey boo toogoon fii. Mm. police war fee def descente. Mm-hmm. bu ñu waree ñëw avant vingt minutes yow da nga fi jóge dem sa yoon. da ngay dem ba ñëwaat ñi yëg ne gars yi ñëwoon nañ. ok mais wuute nag dégg naa nag ni ngay wute yu métti yi mën nga ko wute xéwal yi tamit de. déedéet. Ah. dafa am aw yoon. aw yoon ah. doo wuute ay xéwal de. Ah, wuute gii da lay indil xéwal waaye du la wuuteel ay xéwal mm-hmm. kon daal ngeen dégg ko côté bi nag euh, borom fit yi. nekk ci bitim réew nga xam ne que dugg ci tooxi doon a gune xeet googu yéen a xam nag dégg ngeen li mu wax nee na moom moom côté boobu moom kuy dugg ci lu di lépp daal mën na laa garanti léegi nag beneen mbir bu nekk côté boobu numéro baa ngi noonu de 102 94 94 sëñ Cheikh Fall Xataaba euh, tul nag tul noo defa nga tul tul dañ koy liggéey hmm. tul bi ñuy liggéey sax dafa am ñetti façon tul dafa am ndambal weñ am tul joo xam ne nii day tulal sa yaram rek waaw am tul joo xam ne day ànd ak génn daanu dafa am yooyu nag ñu kenn ku nekk yi nga ci ittewoo mm-hmm. nga xam ne ci ñoo xam ne bi ñu bëgg mooy ndambal weñ bi rek nga xam ne tey ku li jubale paaka mu balaa si sa jëmm damm mm-hmm. am na boo xam ne mën nañ la koo jam mais ko yëg na ci nag boo xam ne moom doo ko day damm te yow ci sa jëmm da ngay tàggu sa sago tey buñ génne woon fii paaka rek nga tàmbalee yëngatu yow yow yow mi yow mi ko takk nii waaw. Ah, ah, mais boo yëngoo gars yi ñu laa jekk ci diggante bi. déedéet boobu kenn mënula kenn mënulu dara doo aadama mënu laa tey te koo dóor nii day mel ni weñ nga ko dóor. Hmm. looloo waral ñi koy takk. maanaam ku jëflante ak ñoom rek dootoo ko defati. waaw ndax. kon daal tul ah tul fetal bokk na ci wala. non tuli fetal nag moom mënuma ko liggéey. Oh, ok gis nga ni maandoo man nag li laa bëgg ah gis nga sëriñ si loo man da nga ciy dem ba mu jeex loo mënul na nga ne mënoo ko Euh, am na benn waay boo xam ne doon na wax ak man dafa am ba ci àll Maroc lañ ko téexoon ba daal six mois ñu tëjoon ko kaso benn sëriñ <laughs> bu ma invité la moo tax maa ngi jéggalu de billaay dinaa invité nit mu teg leen coono dinaa indi invité nit indi leen njariñ lépp mel na man mi la pour wan ne la am kenn yaakaar laay am rek indi moo tax sëriñ bu ma gis ne nag mbiram lëndam na rek mañaan yàlla bañ ko gisati daal façon boobu sëriñ bi daal indi na ko tooxi doonu jox ko fit woo xam na que assuré ko te fekk assurance bi assuré wu ban jàpp ko tëj ko kasoog yu mel noonu daal ndaxu fit moo tax euh, dee yem ci li ngeen man daal moom leer na ne nee na mën na tul yi mais mënul fetal keneen mën na ñëw ne mën na fetal mënul lii dégg ngeen ko kon Euh, kon ku ci ku yooyu xanaa ku ko bëgg moom dina ñaq wala mu ñuqi de. waaw xam nga nag lu baax mënta yomb. lu baax mënta yomb. lu baax mënta yomb waaye képp koo xam ne woo nga ñu wala nga ñëw si ñun am itte. waaw ak itte ju mën a doon ci àddina. Mm-hmm. buñ la xoolee ci sa niveau. Mm-hmm. ba xam ne yow mii am nga yéene waaye da ngaa mën. Mm-hmm. danañ fexe bu wooyee falal la ba li nga bëgg nga am ko ndax ñun faj aajo nit mooy suñu itte. macha allah sëñ Cheikh alxataa xataa baatu xataa ba lu mu tekki. xataa ba xasida la. xasida gi ñaan ba xal bi yàlla man laahu sallamani min alxidaawa bi at attishan bi akramani suñ tubaa ko bind woy ko yonent bi suñu waaju suñu maam ji ñu tudde daf ko daan yëkkati moom suñ tubaa ko yar mu am ak suñ tubaa fukki at ak benn dégg ngërëmam miraaran yàlla dimbali woon ko nag mu daan yëkkatil sëriñ bi xasida manoon ko manin woo xam ne itam àdduna sépp xam nañ ne mboolem ku yëkkati xasida ci moom nga ko roye ñi lay aw yàlla dogal nag xasida gi man gi mu ko manoon tax sëñ baara mu sëñ Tuubaa moo ko ko tudde sëñ Mor Moussa moo ko ngénte mm-hmm. moo waral tur yu barkeel ba tey ji mboolem ku bokk sax ci moom dib sëtam diw xataaba lañ lay woowee diw xataaba masha Allah sëñ Cheikh Fall euh, xataaba euh, sëñ Cheikh Fall xataaba gis nañ ne am na beneen euh, mbir boo xam ne que day sonal ñu bari mais gis nañ ne sëriñ si duñ ko xeeb mais ñi soxla sëriñ si moom day mel dañ koy xeeb te lu jafee dindi muy cat nan nga ko mën a lijjanti daal parce que gars yi bind nañ ay way yàkkaadu fàtte ah, dugalante ba sonn daal mais cat daal mooy loolu parce que fii Sénégal li ci ëpp solo mooy ku tekki dara ñu wax ci yow dara ku tekkiwul dara nag ñu xeeb la teg la nële kon dafa mel ne ñu lay catu <coughs> xaw na tane ci ñu bañ laa catu daal. waa xam nga cat. Hmm. moom nit kenn mënu leen a tàggale. Hmm. mooy tawat ju du wér. Hmm. day tane rek. léegi nag nit ki bu xamut loolu day jàpp ne cat moom da war a ñëw dindi ko léegi dem mu jeex ci yow dootu la dal mm-hmm. te cat da nga koy dindee sa biir kër léegi génn taxaw ci mbedd mi mu dal la mm. ndax sénégalais ñoo bëgg cat mm. ndax liñ gën a bëgg ci àdduna mooy ku leen jaay mm. te cat li gën a yës ci àddina mooy li jàkkaarloo yow dalay dugg facilement mm-hmm. te li nga li nit ñi gën a bëgg mooy sañse sol gramme bu génn ñeneen la diw li nga def yaa def nii loolu yow yaa ngi ciy kontaan di bëgg di xoolaat sa bopp di niir te fekk ki la wax loolu rey na la te yëgoo ko bu ko defee nag nit ki mm-hmm. li koy sàmm ci cat li ko dimbali ci cat mooy mu nangoo sangu te wala mu dëkkee ko sax fi ne nit ku ne war ngaa am sa xàmbul cat loo xam ni doo tëdd mukk te laaloo ko bis bu yàlla sàkk ndax loolu dana bokk ci li lay dimbali ngay dox mm-hmm. ndax bari na nag ñu sumi ci mbedd mi wala ñu woyee de wala ñu dem ba dof te cata leen jàpp kenn liggéeyu leen de cata leen jàpp mm-hmm. mais ñoom alaa nag Mbappé cat du leen jàpp ah ñoom cat man na leen a jàpp waaye yàlla suñ borom tamit dafa am nit ñoo xam ne nii da leen a aaral boppam rek. xëy na ñoom fi nii boo waxtaanoo ak ñoom am nañ ci loo xam ne am nañ ci cat. waaw koo mut cat amul. <laughs> mais da nga koy formaté yow moom. waaw moom da nga koy moom dañ koy raxas. waaye nag duñ assuré kenn cat dootu la jàpp. buñ la ko dindilee tey na nga xam ne. bu weer wi dee war ngaa ñëw dindiliwaat waaw kay ndax. mais nit ki mën naa fexe daal moom cat bu ko jàpp mu bañ ko yàqal daal. jàppet du ko yàqal loolu day am. Hmm. loolu it am na maanaam fexe ba sa toujours. Hmm. maanaam donte yaa ngi am catit du la gàllankoor waaye dafa am cat yoo xam dafa gaaw ci gàllankoor nit. Hmm. tey da ngay sañ si génn sa kër rek taal sa poto départ léegi dajeeg nit mun la diw nangam. da génn rek donte long voyage nga jëmoon wala nga nekk ci itte. amul ndox mu rëy sa pono kër bi wala sa moteur nangam wala nga jàpp lii. sax nangam ak nangam te fekk cat la. waaw léegi nag loolu am na lu ko mën a fànq. nit mën naa fexe ba yaramam. Mm. saf-saf goo xam ne nit ki bu la waxee loolu day mel ne loolu daal sa kaw wàcc. Mm-hmm. du la jàpp. ku baaxu comme par exemple ab jàngkatu alxuraan wax kat lu baax def defkatu lu baax euh, dina catu nit mu jàpp ko comme mu jékki-jékki na sa yére bi rafet na. Euh, loolu yéene la ci jàmm ba pare. Cheikh Cat yàlla moo tànn ay mbindeef yoo xam ne nii da leen koo may nga xam ne seen mbir la dañ koy def saa buñ ko defee mu jàpp dafa am nit ñoo xam ne yàllaa leen ko defal lool. Sëñ Tuubaa da koy ñaan ci si ndiit yi day dem bay wax na ne nag ma musal catu làmmiñ kon kay lu am la su amutoon Sëñ Tuubaa du ko ñaan waaye nag du ñëpp la ko yàlla def am na ñoo xam ne tey lu ñu la mën a wax du la wàññi dara waaye am na koo xam ne bu xoolee donc waxuma la mu wax mu wàññi la waaw loolu nag dafa am ci nit ñi moo tax mm-hmm. jërëjëf euh, sëñ Cheikh Fall Xataaba numéro baa ngi noonu ci écran bi 77 102 94 94 77 102 94 94 102 nag 1 la ak 0 ak 2 pour ku déggul daaj 94 9 ak 4 94 9 ak 4 nga def ko ñaari yoon euh, sëñ Cheikh Fall Xataaba nekk ci Touba ak Nord Foire nga dis ko soxla mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi xam ne que euh, tëliwul dara te mën na lépp jumtukaay yi nag fu mu mën di nekk muy Touba ak Nord Foire Euh, ak nga nekk bitim réew yëpp mën nga jot ci say bagage te bu la neexee coono du coow du jib daal parce que jumtukaay yi léegi àdduna bi avancé na am na mën na laa indi ba sa kër nga am li nga bëgg bu baax a baax a baax yow mi nekk bitim réew nag insistel woote woo ko boo ko jotul tamit nga insisté tamit ci vocal te bu yeexee tontu nga dolli baneen bu baax a baax a baax am nañ yaakaar ci moom te yàlla bu yaakaar tas ñun daal lin bëgg mooy euh, domaine bii yamuñu jëkku yàlla bi ndax lan yéene rek lan def bëgg na sëriñ bi ami milliard bëgg nañ sëriñ bi jëriñ askan bi bëgg nañ askan bi ak sëriñ bi di dem bay tuddante ak doom façon boobu lan bëgg képp ku ñu invité ngay def te yàlla tax te tamit euh, bul jiital alal ba doo jiital li tax ñu naan sëñ diw moo tax sëriñ su bari wàcc deuxième division fonk kotu western yi ba mu ëpp ba tax di fanaan ci tiktok bi daan euh, seete lu seer ba mujj léegi seet bi gratuit lay doon ci tiktok bi pour duñ la wax lu leer jël ma ci suuf après nga kii ñun tappale ci de ñun première division la nekk wax lu leer def lu leer jàmm ne ñooy euh, tul bi kon ndomba tul bi wax nañ ci ba pare ah tul moom da nga am ndomboog yépp euh, léegi ku tëju euh, ak ku umu lan mooy difference ak ku ubbi nit loo ci man ubbi ubbi nit mbir yi dox cinq cinq 5 quoi. waaw loolu dafa am day mel ne traitement nit ku feebar. ku tey boo tawatee dem hôpital dañ lay bindal ordonnance. Mm-hmm. ordonnance bi buñ ko bindee di la ko jox dooy ñëw rek naan ko wér tey. Mm-hmm. nit ki nga xam ne daa bëgg mbiram dox. tegu ci yoon. dañuy xool mbiram ba xam nit ku war a am wërsëg loolu ku ko wërta am loolu dafa jar a xam ci nit ñi. mais si ñemee nit ba pare ne ko yow de amoo wërsëg da ngaa gàtt wërsëg. nit ki mën nga koo bañ a wax loolu sax. Ah. waaye mën ngaa xam ne kii du nit ku am wërsëg nga am yoon wooy jaar moom ba mu mos dara. dara waaw. waaye doo doo nit ku am wërsëg moom kenn mënu ko wax nit <laughs> waaye nag noonu la ko yàlla bindee. Hmm. mais wërsëg kon dara mën na ci dooleeku li yàlla programme pare. déedéet yàlla kenn ku ne bi nga amee ñeent fukki guddi ci sa waajuru jigéen ci biiram. Mm. ci la programme sa destin àddina bi li nga war a def fi nga war a dem li nga war a lekk. ah même sëriñ si nga war a dajal ñun nax la sax yàlla foofu la ko programme waat. suñu borom bind na ko ba pare yàlla buur bu màgg la sax daa kamal maanaam nit ki. Mm. fépp ceeb bi mu war a mujj lekk bis bu ko lekkee pare na mënut a wax ba tekki beneen. Mm. loolu mooy mbirum yàlla. temps lay xaar ak waaw bu ko defee nag yow mi nga xam ne yàlla da laa bind ci wàllu wërsëg. Mm-hmm. nga fexe mu gaaw ñëw. day am ak nga bàyyi jël sa temps. jël léegi nag yow mi nga xam ne nii yàlla bindul la ci wërsëg. Mm-hmm. bu ñu xoolee ba xam ne doo nit ku war a am wërsëg. Mm-hmm. danañ fexe ba suñu borom di la suturaal ba say aaju di mën a fajo loolu moom mën nañ ko ñaan yàlla te mën na ko may nit. macha allah lan mooy tëj nit. tëj waaw tëju ci wàllu xéewal. waaw mooy yàlla. mooy bokk na ci li gën a mën a tëj doomu aadama sobe mais ñoom jaaxal ñoom Mbappé am nañ xewal de. kaay ma wax la dafa am nit ku weex am nit ku ñuul. Ah. dafa am nit koo xam ne nii day nitug leer. kooku bu dee mooy yàlla mënta wax ba am dara. Mm-hmm. nit ki ñuul ki na ki nga xam ne day nit ku lëndëm. mën mm-hmm. nañ mooy yàlla du ko wàññi dara wala du yëg lu koy wàññi bala koo wàññi ca kanam. waaw mais daal man de mais tamit am na imaam yoo xam tamit dépense da leen tëdd ñu seet lool tamit xéwal tëleen. wàllu Kamaal sax góor yàlla goo xam ne faa bu jéggee tànkam kënu jib ci aras da nga koy gis yonent bi sax xiifoon na bay tayle ay mbubbam di hmm. te moo gën ñëpp. Hmm. du dëgg. wàllu am-am bokkut ak dara sel ak taq. ak taq. waaw lay mbirum yàlla. Hmm. mooy li ma la wax léegi rek suñu borom mën naa namm ci seex mi ay milliards. te seex moom. waaw barakallahu léegi nag kon Cheikh ak lu mën a def ci àddina milliard dana ñëw. milliard dana ñëw. dégg nga suñu borom bu nammee ci maanaam keneen safaan maanaam wurtu am xéwal. Hmm. bu doonoon doomi suñ ku mën a doon ci àddina te yàlla nëmmut ci moom xéewal du ko am. du ko am. Hmm. jërëjëf sëñ Cheikh Fall Xataaba bi na la kii abonné leen Tektal TV de bés rouge bés close émission bu ñëw ngeen am ko abonné nag doo ci fay dara. kum neex nga abonné kum neex bul abonné ñun moom njëriñ lan yor bu baax a baax a baax a baax ku nekk bitim réew nag ay kéet tëkku. mu bëgg kayit ak koo xam ne tamit dafa nekk fii ci réew mi bëgg a tukki mu tëg ko ak koo xam ne dafa nar a jël yoonu suuf yi Grégoire ah, yoon wa nu mu tuddee na Nicaragua Nicaragua ñi nga xam ne dañuy jël yoon wa am gàllaaj daal nga xam duñ dajeeg mexicain ay ñoom Pablo Escobar indi leen i problème ak yooyu xet googu daal ak ñuy jël gaal yi suñ <laughs> si yooyu yëpp daa mën a am <laughs> waaw bañ xasee ba tuddee mbirum ñaan yàlla rek xam nga fi ne boo dee asraar jam nga def. Hmm. jëmmi dëgg dëgg asraar du nit ñi sëriñ si di waxtaane wala nit ñi ko xam. seex hmm. asraar dëgg dëgg dëgg duñ ko wax sax ci biiru néegu xuma laa kon pénc. Hmm. yi li ñuy waxee nii waxtaane nii du asraar kamataraak ay yëf laa ak ay nangam. waaye ma bëgg laa xamal ne asraar amul lu mu mënut ci doomu aadama mën naa jëlee xur sow. yóbbu ko penku. waaw kurus. mi nga xam ne mooy dëgg dëgg asraar mhm. tey boo génnee sous-région bi Mauritanie bi naar yi rek boo fi demoon ñoom course lañ gëm te course ku ne xamoon na xummay ni daana daana avion ci benn per course mhm. loolu nag mbirum course la loolu mooy dëgg-dëgg asraar pour yow fexe nga am visa léegi dem Europe wala nga dem am këyit léegi loolu dara. loolu dara loolu dafa yomb. kon dégg ngeen ko ku bëgg a tukki daal mu ñëw dana indil passeport loolu moom waxee yëfi tappale la. Hmm. passeport moom jërul jot benn sëriñ naan ko ñaanal ma ci. kon dégg ngeen ko nee na ku bëgg a tukki nga ñëw bu soobee yàlla di nga am lu kawe njort koo xam tam dafa nekk ay kétt la man nga ci am lu kawe njort mais man am na sëriñ soo xam ne que euh, dañu ñaan mais dem nañ ambassade ay yoon mayuñu leen loolu kiit yee matul wala seen xam des wala luy mel ay sëriñ yu mag sax waaw yoo xam ne dañuy dem duñ leen may man nag boobu dama ci am benn jàngat dama ci am benn jàngat du cuuneeg sëriñ de sëriñ bu loolu dal bul ruus ne damaa dem ambassade may ñu ma bul rus di ko wax dañ ma defal invitation jàllul xam nga lan moo tax ma wax loolu nit ki coono bu la yàlla tegul bu ko teg sa bopp ah boo dëggee sëriñ wax dëgg yàlla doonub sëriñ rek tax boo feebaroo sañoo faju ji boo soxlaa ñaan sañoo ñaan lu ci boo amee demee ambassade may ñu la sa nga mel ni dangaa def déli problème bi mooy am na ku dàq koo xam ne que Messi mën naa am dàq koo fubal mais bu jaarul fii ni jaar kéet pour mën a dem football lissance bi du du bu ne lim ñu dàq football ci àdduna bi du la ci boole. est-ce que comme xam nga loolu ku koy wax rek. amoo xalaat wala xamoo yàlla xamoo këriñ. Hmm. loolu du këriñ. Ah, ah. ah sëriñ daal moom bu demee ambassade dañ ko war a may. non non déedéet du loolu sax. Hmm. war nañ koo mën a réciter. war na moom laa bëgg a wax. dama laa bëgg a wax ne la. Hmm. loolu jotiwut ak dara ak sëriñ bi ñaan. àddina bii nga nekk. am na fi mbindeef yoo xam ne wax nañ la ne la dekkal nañ ay nit. ana ñu léegi kon amul loolu amul. wàllu sëriñ sëriñ da ngaa gër war a gëm ne kii doomu aadama la comme yow. xam nga liy dansé mooy nga dem ci sëriñ jàpp ne moom jàppe ko jëm yàlla. saa boo ko defee yaa ngi def ak njuumte. Hmm. sëriñ bi saa bu jàppee boppam yàlla rek dof na. dégg nga sëriñ bi kon sëriñ bu loolu dal rek teggil naa la say mat sëkk mën ngaa dem ambassade ñu bañ laa may est-ce que am naa euh, tey am na ci ay joueurs yoo xam ne que dañuy toog am na joueur boo waroon doon na football temps yi la mënu wu mu bañ a vacciné wu ak yu mel noonu te kooku foofu la juddoo presque il faut que ñuy comprendre mbirum kayit dafa am loo xam ne ay sart la sart yi nag saayir bi ak baatin bi bu ko jaawale yow mën ngaa def baatin bi bu saayir bi mënul mënul mënul kayit du dugg am na mu bëri yoo xam ne que ñi leen di ñaanal ban jàpp ne gàllaaje daan ñoom lan takk bu ñu demoon bëri woon sëriñ yooyu ñu duma leen ci ay seconde kon ngeen comprendre tamit ne noonu la mbir yi demee rek dafa loo xam ay sart la faaw nga jaar ci daal sëriñ bu xamul dara nag jël engagement ne ku ñëw da ngay kii jël engagement yu diis yoo mënul tamit te mënoo génn tamit loolu tamit ñu seetaat quoi ah. bu bu bu naxante daal na kenn ku ne def loo man euh, sëñ Cheikh Fall xataaba euh, ñu ñëwaat ci wàllum sarax sarax tamit dafa doon boo xam ne que sëriñ bu jub mën na ci dimbali nit ci nit wax ne sarax noonu la baaxee mais sëriñ bu bon mën na ci lor nit ndax toog naa la defal naa la sarax yi rek nga toog di xel mu dal fekk moom ma ngay lekk ginaaram duy firigoom yu mel noonu loolu àq la léegi sarax njëriñal sarax loolu ci mën a wax. njëriñul sarax dafa bari suñu seex sarax day fanq. day fanq day ubbi day yëkkati day jañ. Mm-hmm. ba noppi day yombal. Mm. maanaam sarax ak yi dañoo sorewut te Serigne Saliou dégg nañ ko ci kàddoom mu ne yi day fekk sax fu dara néewut mu def fa dara. mu def sarax it noonu lay def. Mm. gis nga nit ki fonk sarax mënoo wax ba yow mi ko fonk du la ko rawee. Mm-hmm. parce am na gimiñ goo xam ne saa boo ca defee dara ca saa sa suñ borom defar sa mbir. Hmm. mën nga ko mu sax ci mbedd mi muy ko solut lu baax wala ku soli sagar wala ku wéredi hmm. wala gone goo xam ne xamul dara. Hmm. donte tàngal nga ko jox mu seex rek suñ borom defar yàlla doomu aadama la bëgg. nit ñi loolu lañ war a xam. gis nga jàmm yàlla ak liggéey yàlla li ci gën ci àddina mooy def ko ci nit ñi. mooy li naan yàlla ci jaamu yàlla yi. xam nga jox benn jullit benn tibu ñam mu lekk. dañ laa wax ne moo gën junni julli junniy rakk kon nit ki yàlla la nit ki la bëgg moom doomu adama léegi nag saa boo xam ne yaa ngi joxe sarax te xam yoon wa nga ko war a jaarale ak fa nga ko war a awale mënoo wax ba sa mbir du yëkkatiku am na koo xam ne ñaan nit dana ñëw ci man di ñaanlu ma xool mbiram xam ne kii mbiram sarax kese la duma ko duma ko jox ca ngan waaw ci sarax rek laay aw ak moom ba muy gis ak yëkkatiku ak yokkatu kon dégg ko kon ko euh, sarax nag mu doon. waaye sarax it daa am yoon am mm. tamit aw defin. ndax bari na ñu ñuy digal sarax lañ leen di digal ak nañ koy defee du leen jariñ. du leen jariñ waaw saraxu rawxaani yi daa am saraxu tabixa am. loolu nag il faut sëriñ bu ko xam moo koy xam xam la ciy jaarale. ngeen bàyyi ko xel tamit dafa am sëriñ soo xam tamit danoo xamante ngeen bàyyi xel leen sëriñ bi da lay lekk ba mënatu laa lekk mu jël keneen say information wax ak keneen sëñ ba ñëw di la wax rek nga naan kii du fekk ku anse ba moo lay wax yu mel noonu man nag ak tappale nekkuma ci man dëgg rek laa soxla ci ku ko man di def sëriñ bu wàcc xoolal li la wàcc sëriñ bu yëg farlul ci li la yéegal bu baax a baax a baax a baax te xam ne dëgg rek mooy dëgg euh, sëñ Cheikh Fall Xataaba mu ñëw ak yoon ci feebaru néew kàttan ci wàllum sëy gis na ne boobu nit ñi dañ ko yombal mais yombul te ñu bari ay at daanaka dañu kon ne di la ci laaj ku la ci ku ci man te da nga gis ne ba léegi problème boobu daal day jafee réglé boobu lan nga ci mën. Cheikh néew kàttan nag faj ko yomb na de. yomb na mm-hmm. gis nga doomu aadama dafa fort. te lépp luy indi àddina yàlla du ko caaxaane. Mm-hmm. ndax lii di sa euh, lii di sex waaw amul yax amul leneen. deret la ak sidit te ku ne xam ne ne su melee na mu war a mel dana mel noo xam ne da nga jàpp ne deret ak sidit wóor te mën a taxawee nii. Mm. loolu nag leeru yàlla la. nit ki nga xam ne nii. du fo. du fo du yàllaa ko natt rek mu néew kattan dem ba nam ko ma ne woon mëneetu ko wala yëf yi nooy wala bu taxawalee du yàgg wala yooyu. Mm-hmm. kooku dañ koy faj facilement. am nañ garab yoo xam ne moo koy faj. moo koy faj. ab fo ab fokkat moom mënoo ci ah, sax mën nañ koo faj. Mm-hmm. waaye boo ko fajee te bawul fooy day dellu ca lam newoon rek. dafa bari ñoo xam ne dañuy jël sa garab di fo. buñ doxee tuuti. dañ naan garab ga man daal sëñ bi temps yi ma koy naan kii woon na waaye fi mu ne naa nga mm-hmm. waaye nit ki nga xam ne gis nga mag ñii fi njëkkoon mm-hmm. dañ doon am ñeent fukki jabar ki juróom fukki jabar mm-hmm. dund nañ ba am juróom fukki at di ami doom man gis naa ci mag ñii koo xam ne nii am caatam téeméeri atam ak fukk la ko bi loolu dund bu baax a ko waraloon mooy yaram bu baax ak ñàkk fo leeru yàlla li nga xam ne saa boo koy def malaayka kii dañ lay sàbbal hmm, di la di la di la di la ñaan yàlla suñ borom yokk say leer ak sa mbir mm-hmm. loolu jaamu yàlla la du ay caaxaan waaye saa boo koy foweet noonu lañ lay musloo mm-hmm. mooy warali suñ borom di la indil gàllankoor yooyu cee xew yëpp mm-hmm. waaye ngóora moom ak kàttan dafa sàkkare te suñ borom da koo fonk da koo fonk ci doomu aadama yow boo ko doon defal traitement bi ñaata lay diree bu dee wàllu ki nga xam ni dafay day maanaam dafa mënatul la mënoon donte mi ngi yëkkati ko waaye da da dul yàgg kooku traitement de semaine lañ koy liggéey deux semaines ku dem ba feebul nag mënul dara moom. ku dem ba feebul ba xam mënatu ci dara. mën nañoo fexe ba mi mënaat dara. ba mi mënaat dara waaw. ku nekk mag nag. ba ci mag sax. ndax maanaam wàllu kàttan ak sëy day mbirum deret. te ñun garab yi ñu lay jox day raxas sa deret. day raxas sa deret waaw. hémorroïde moom noo def ak moom nga xam ne que waa ministre yeeg tailleur yeeg chauffeur yeeg xeet tokkat yi mi ngi leen di sonal hémorroïde. bi feeñ ak bi nëbb yëpp dañ koy faj. dañ koy faj waaw. Hmm. boobu tamit ba mu wér péng bu mu ci mën a doon boo jëlee garab yi temps bi ñu la wax da nga tàggoog moom ci insha allah. temps bi gudd wala du gudd. du gudd deux semaines trois semaines. deux semaines trois semaines garab yu weex wala yu weexul. noo weexut xaale sax mën na koo naan. xaale ñun garab yi ñuy joxe fii la dëkk ci réew mi. ci ndax mbindeef moo gis ci àddina fa mu sax fa mu fa mu juddoo. Hmm. la koy faj suñu borom saxal na ko fa. te yow suñu borom dimbali nañ ci ba xam nañ ko te am nañ ci yoon yu wér ak ñin ci liggéeyal ba tubaarkàlla garab yi képp ku ko jël gis résultat hmm. euh, maamam la ko mën ndayam siti moom it da nga koy lijjanti. ci macha allah maanaam la di garab tawat yi bu doon garab moom mooy dàtt bi ak reen hmm. siti moom képp koo xam ne nii euh, mënut a mën mën naa faj le hmm. maanaam war naa mën a faj siti. war ndax siti ci deret lay ne rawatina ki nga ki mu dem sax ba génn ci sa yaram ak sa loxo. Hmm. soo jëlee sunu garab. une semaine nga gis moo tàmbali bi incha allah. estomac noonu dafa moom. jooni jooni lañ koy faj. jooni jooni comme estomac te xamu ko si ñi nu mu mel. estomac boo koy am. te xamagoo ko boo saaboo boo yëgee aw tàngoor sa yaram mm. di yëg sa ginnaaw gi mel na dañ la fay dugalal dara mm. mu tàng jër di diis mm. di jàpp sa dënn di yëg di wàcc mm-hmm. mel ne lu lay xariñee ñi léeg-léeg mu yéeg ba kii wala mu jàpp sa ginnaaw gi ba mel ne dañ laa dafa am lu fane ne mm-hmm. di metti loolu mooy estomac képp kum dal noonu lay noonu lay defee siiñ ci sa jëmm. Hmm. asma nag da nga koy lijjanti. asma man maa gënoon a asma ñëpp te maa faj sama bopp. waaw. Hmm. may seetaan xam ma xam nañ ne dund naa loo xam ne ni mosuma ko dund ci feebar. Hmm. waaw ay at. waaw. dégg ko moo tax côté boobu di ci waxee am na ñi ñiy sonal Cheikh Baara Ndiaye dem doon ko wax naan asma da ko doon faj man gis naa kom faj asma. Uh-huh. kon bu ko amee ba ne feeñ na fee ci moom ngeen jàpp ka ne tamit. Euh, da ngay dégg ko naan la amoon naa ko alkarim dinaan amoon naa ko maa faj sama bopp xeet boobu daal ngeen bàyyi yow da nga ne amoon nga ko yaa faj sama bopp kon loolu tamit ngeen bàyyi xel loolu ah, euh, day wér day wér péng dadi dadi nag nit kii fi mu lay dale waaw bu fekkee dafa am âge bu mu la dale waaw mën naa yéex wér wala mu sonal la waaw euh, kon dégg ko bu baax a baax a baax a baax kii ku paralysé nag loo ko mënal paralysé mënuma ci dara mënoo ci dara lu mënul dinaan mënu ko rab nag moo def moom rab gis nañ ne am na sëriñ soo xam ne seen communication daanaka lépp rab lañ koy def président bi euh, bu yéexee jël décision ñu jiñ ko rab bu jëlee décision mu ëpp ñu jiñ ko rab kuy tukki yàgg fa ñu jiñ ko rab kuy euh, moom daal lépp rab la daal moo tax ma ne rab ndax li nga koy jiñ lépp moom la. déedéet rab dañ koy tuumaal <laughs> am na nag. dafa am bu baax a baax a baax a baax. Hmm. waaye lu ñuy tàggale nit la tamit. lu rab dafa am nit ki nga gis da gis nit koo xam ne tey jii bu soloo ba taxaw nga xam ne nit ku nit ku service ngi nii. Hmm. waaye su waxee nga xam ne dof la su jëfee nga xam ne dof la. Hmm. wala nga gis koo xam ne nii maanaam day day day day day day jëf nga xam ne jëfi dof la jëf. waaw mais dof dafa am ay façon daal te yooyu yëpp rab da koy def nit. Mm-hmm. rab it dana xeertal nit ci mbir. Mm-hmm. da nga gis nit koo xam ne nan sàngaraay mbiram nga jàpp ne dañ ko cee yàq te rab ko koy def mm-hmm. am na koo xam ne jigéen a jigéen a doon mm, am na ñoo xam ne dañuy dem ci marché yi sax di sësu. di te loolu ko am na ci ñoo xam ne du doon luñ tey. Mm. xam nga sësu amul benn plaisir. mais da gis koo xam ne da ciy xëy suba ba ngoon topp nit ñi ci marché yi. Mm. nga jàpp ne kii. maanaam dara la te fekk rab a ko def loolu. wala kuy fowee awram guddeeg bëccëg saa boo paree day ne ci nekkaat. Hmm. kooku rab da koy xiirtal nit wala nit koo xam ne dana sañse ba jekk. Hmm. tàggu dem ba ci biti mu ñëwaat duggaat ci néeg bi sanguwaat solaat meneen bu bu demaat ba ci biti xoolaat xam ne ah lii rafetul daal di changé waat sax loolu nga jàpp ne nii dara la rab da koy def nit. Hmm. loolu nag lu ñuy dindi ci nit la. parce que am na ko jigéen ku may xam nee na ma moom bitim réew la nekk nee na pour mu seq ak góor dara. problème la maanaam bu demoon ba ak si fenn yemul ci seq ak góor de même buñ ko joxoon garab nii mu jàpp ne lii bu ko sangoo mën na baax sax euh, règle mën na ñëw foo xam ne fu du période bi yépp ndax moom d'accord na ne rabam moom daanaka foto ko rek moo fi sës mais di koy gis daanaka am. waaw dafa am loolu kenn ku ne sa niveau rab fi mu toll. am na nit koo xam ne nii foofu la egg ak rabam daanaka da koy gis muy ñëw nii. man xam naa koo xam ne nii daana jàkkaarloog rabam nee na muy ñëw bu ñëwee ñëw moom mu sëy ak moom. am na soxna sëy na ak moom fanweeri at ak nangam. fi may wax nii wér na ba am am tub tànk te jàppoon na du ko am ci àddina. te loolu mu daan gis gisatu ko. Hmm. waaw da di alxuraan. Hmm. lépp la ci suñu borom def. Hmm. mais sëñ si nag lii di faj rab léeg-léeg day xaw a niroog théâtre quoi doo bàyyi li nga def ah def ah di ko bàyyi boo doo doo bàyyi jàmm doo maa <laughs> yooyu moom man du ma weddi kenn wax dëgg yàlla seex yooyu du ma kenn waaye man rab fajuma ko ci ay <laughs> waxante mel ne ku jàkkaarloo sa morom parce que rab du lu nit ma yow moom mi rab daal daal man na koo gis waaye yow mënoo gis rabi nit mënoo gis rabi nit loolu ay waxi caaxaan waaye alxuraan moom suñu borom def na ci loo xam ne nii képp ku ko jëfandikoo rab bu la man a sonal dana la daw dana la ragal waaw doonte dalay lor dana mujj man sax laa jariñ mais dootu la lor bindal 77 102 94 94 102 nag 1 la ak 0 ak 2 pour ku déggul daaj 94 9 ak 4 94 9 ak 4 numéro bi am na whatsapp sëñ Cheikh Fall Xataaba nekk ci Touba ak Nord Foire sëñ Cheikh Fall Xataaba léegi ñu ñëw ci euh, beneen mbir tamit mooy commerçant bu daanu bëgg a yëkkati ko waat kooku mën nga ko yëkkati ci lu gaaw. waaw. Hmm. kooku bu ñu xoolee mbiram ba xam ne ko war a yëkkati ko waat la. waaw. loolu yomb na. yomb moo gën a yomb. waaw baat ak tontu la. ah jeex na kon kuy jaay oto nag oto yi tëw a jar parking bi pënd yi oto yi pënd poussière tëw faa jóge yooyu man nga ko defar tam. bayre xam ne boo ko defee ci njaay. bëgg jënd bañ jënd nit dana la romb sax di gis ko rek am envie jënd ñëw jënd. am loolu moom yooyu yooyu yëpp seex. dafa yomb. joueur bu bëgg di dem am sa marque nag mën nga ko ci football. di dugal di dugal waaw. bu baax a baax man naa nekk de. kon Mbaye Diagne ah euh, Sadio Mané dégg ngeen li mu wax de nee na sa kon ku ku ñëwoon comme joueur bu ñëwoon ci benn saison saison bi ñëw mën na la jaay ma bii quoi ne la jaay ma benn cinquante bi nga nga ne ko temps la nga fay ko moom bu ko defee yaa ko yore cinquante bi. assuré ko bi. waaw mën naa nekk. match bu ne. waaw naa nañ laa bi bii. match mën na la assuré bii. waaw. non match kon saison bi du match cinquante bii de bu dee match bu ne benn la. waxuma saison ah, dama ne saa booy football. waaw soo bëggee ñu assuré la bii nga dugal force. nga dugal te nga ko xam nga lépp loo xam da nga koy def ak mbooloo muy fukki nit wala ñaar fukki nit. Mm-hmm. mën nañoo fexe ba bu dee lenn ndam la ñu jox la ko yow. jox mm-hmm. léegi ku bëgg di doon euh, dem ci club yu mag yi nag kon bu ñëwee ci yow mën na nekk. bu baax a baax. Mm-hmm. gis nga ak yëkkati ko ak falu ak fexe nit ki jóge fii dem fii. loolu ñaan yàlla amul lu mu ci mënut fi kon yow joueurs yi nekk senegal nii di football te tekkeegul dara ay loolu mën nga leen yóbbu ci club bi mag bu baax a baax a baax na seen waajur yi ñëw rek maanaam loolu amul amul sax ma dem te hmm. saa boo xamee ne nit ki bëgg nañ ko jële fii yóbbu ko fii hmm. dama laa wax léegi ne la yàlla buur bu màgg la dañ hmm. ko ñaan rek insha allah li ñu bëgg mën nañu ko may ndax doyoo ko dara jeex na sëñ Cheikh Fall xataa ba euh, Effenberg yi ci dëkk bi nag mooy jigéen ñi nga xam ne am na xaalis lool rafet lool xaw a nekk mag lool as bi dem borom kër tëlin ñu dugg fu ne euh, pour am borom kër mu tëlin daal te dem nan ba ñàkk fayda pour ñàkk fayda daal day metti ci ñoom daal pour parce que mënuñu wàcc seen niveau bu pare te ñi bokk ak ñoom niveau moom ñoom ñii ci leneen daal borom kër tëlin ñooñu mën nga leen lijjanti ñu am jëkkër ci lu gaaw. xam nga am na ndomb am na téere bu ma daan liggéey ñu koy wax alxayri. ku ko takk dañu takk la alxayri. Hmm. ku takk dégg alxayri. Hmm. ah bu jigéen bu mënul takk téere nag. bu dee jigéen bu mënul takk téere mën nañ ko ko defal leneen lu hmm. yaa ngi dégg te nit ki nga xam ne moom am na ku mu bëgg ba pare. waaw kooku moo gën a yomb a moo gën a yomb a ñaanal. kooku nopp ànd ak tasxiir duñ la ko defal mukk une semaine te amoo jëkk te moom moom ah, ah. inshallah parce que noonu ni ko sëriñ si yombale tam yombul de man am na benn jigéen bu bëggoon benn tubaab soo yu dugg na fu ne yu mel noonu pour tam tubaab bi daanaka ñoo bokk fu ne fanaan moom mais tubaab bi takk rek daj na ci coono bu ne de. xam nga noob day mbir moo xam ne nii sëriñ si dañ ko bari ñu koy tundoo waaye ñu ko man ñoo bariwul. Hmm. ndax doomu aadama doomu xar ba ngay jël bu ñëw yeew dégg nga nit ki saa boo xam ni xool nga ko xool ko te xam te xam mën a xool xam biddiwam xam buróojam xam tabiam xam rawxaaniyam pour nga boole ko ak nit hmm. mu gën a yomb ci àddina waaye loolu nag moo jafe xam fi nga war a jaar ba mën koo boole nit hmm. waaw fii ne nopp ñun bañ koy tàmbali ay donge daara yu ne ci daara la hmm. na ci daara ji di ko defal ay mag yi jëmu ñu ñëw ba ñu koy tere ki ñuy jàngal li ñu tere lii bàyyi leen kon daal nopp moom yow ku amul tubaab ak yëpp mën nga ko lijjanti ak mexicain brésilien nit ku ñuul ak yëpp ku mën a doon ci àddina hmm. boole ñaari nit moom bokk na ci li ma gën a yomb ci ñaan yàlla jeex na kon dégg ko kon nopp moo xam ngay sëy ci kër hmm. moo xam ngay sëy ak jëkkër hmm. moo xam nga bëgg sax nit ñu la bëgg kon yow kun bloqué mën ngaa fexe ba ki ko bloqué woo ko kon bu dee nopp la bloqué ci wàllu téléphone waaw nopp bu jàpp ci sens da am appel wala nga gis ki ki nga kiñ la kiñ la noobal waaw ah, jeex na kon kon dégg ko bu baax a baax engagement yi mu jël. résultat bi moom mooy loolu. mooy nit moom boo ko ñaanalee ci nopp ba mu jàpp. ba mu xam ne ni gis na. Hmm. fa saa sa dana am résultat résultat bi mooy ki nga ko noobal dana ko woo téléphone wala mu seet si ko wala mu yónnee ci moom. Hmm. am sam benn paa bu nekk Allemagne dafa amoon ku am solo ci tubaab mais tubaab bi dëddu ko. dem <laughs> nuyu naa Mamadou Sow Allemagne <laughs> ak euh, Moustapha Mbaye ñi waa Allemagne maa ngi leen nuyu bu baax a baax. kooku am tubaab bu sol tubaab bi rëcc ko daal tubaab bi daal moom bañ gis ko la koy bañ a defati daal mais tubaab bi defal na ko lu ne xeet boobu kon ngeen bàyyi xel léegi euh, sëriñ si tamit ma jox leen conseil am na sëriñ su bari ñuy daanu ma wax leen li leen di daaneel parfois bu dee da ngaa yor jabaru dëkk ba téye ko bu dëgër bu dee da ngaa yor jabaru mbokk téye ko bu dëgër am na ñoo xam dañuy dem ba commencé am appartement bu baax 4x4 bu baax compte bi lu mat 10 millions nekk ci 15 ju yaakaar ne bu àdduna bi doon tukki mën nañ ko tiim nag ñu dem duggi ci jigéen boo xam jomm na leen bëgg xeetu intellectuel yoo xam ne que ñii dund sa genre daal nga forcé ko mu dugg nag mu gën laa muus xam ci sa téléphone xam sa fa jëm lekk ba nga ne ba nga delloo la say mbokk yooyu tamit bokk na ci lii daaneel sëriñ si ngeen moytu ko bu baax a wor jabar yu njëkk yi te ñu góorgóorlu bu baax a baax a baax léegi ñuy sëy tamit doom tënali mën nga ko doom am doom. doom nag moom dañ ciy ñaan yàlla rek. dañ ciy ñaan yàlla. ah mais jëloo ci engagement yu diis. déedéet mën nañoo ñaanal nag yàlla suñu borom may ko nit waaye engagé kenn ko da ko am amul. mbirum yàlla la moom. léegi concours nag xeetu bac BFM magistrat ak concours gendarme ENAM xeet yooyu itam da nga koy liggéey. mën a doon mën nañ cee ñaan yàlla. waaw hmm. ah, bu mu ci mën a doon rek suñu borom mën nañ ko ñaan mu jàpp jàppalal ko ci lu gaaw sax. Hmm. Hmm, incha allah. kon daal yow fi nekk nii procureur euh, xeet boobu yëpp nga xam tamit ñoom it dañuy soxlay ñaan parce que comme léeg-léeg ak juge yi nit day jàkkaarloo ñoom si leen. ñooñu ko ci soxla kaaraange bu wóor te mën nga ko mën nga ko defal. kaaraange ba kenn du la mën a jàpp wala. non comme par exemple comme ni may waxalee askan bi ñu am kaaraange ñoom it juge yi ak magistrat yi am kaaraange comme gars yi dañuy jot wut si leen. takk wut si leen naan wut si leen xet googu. bu baax a baax a baax. bu baax mën nañoo am kaaraange bu baax ba kenn du leen mën a jàpp. Hmm. loolu mën naa nekk bu baax a baax te ñoom xam nga ne bawuñ seen bopp ñoom ñi ci dëkk bi xam nañ li fi xew. xam nañ li sa bopp moom moom doy na léegi waajal waaw. Ah. <laughs> la nekk di tubaab tubaab lu ba sànku nag loola dal yaa ko teg seen bopp ngeen bàyyi ko baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ah, sëñ Cheikh Fall xataa ba léegi yow lan nga gis ne loo tële loo tële yow. lu ma tële. waaw bari yàlla mooy kenn lépp. moom koy da yàlla dalay may ci lii wala nga xam lii. waaye xam lépp man lépp moom yàlla rek ko def. moo ko jagoo waa da di ñaan yàlla nag moom. ñaan. ñaan yàlla nag yow fi mu ne seex man ngaa ñaan yàlla. <laughs> tey jii bu ma ñëwoon am aajo ak lu mu rëy rëy ci àddina. Mm-hmm. mën naa laa wax ne aajo sàngam nga jàpp toog fee wetu sa borom da nag nit ki. yàlla suñu borom mën naa def digganteem ak boromam jege jege gu toll ne bu ne allahumma yàlla wuyu ko rek. ngay gën a am ci moom yaakaar. léegi amoo ñaan yow mën a jox koo xam ne ku bëgg am xaalis nga ne ko def ko ndax mën mën na la ci génne xam ne ku ko def am xaalis. bëgg am xew waaw ku koy def di nga yàlla dana la mën a. dimbali loolu baaxee ñuy seetaan waaw. sallallahu baax na salaatu ala nabi. mu def ko ñaata lu ko waaw bu ko neexee mu koy def 49 fois sax. sax ah. julli gu ne. Hmm. baax na yomb na te sonaliwut kenn sonaluwut kenn. ku bëgg mucc kaso nag mu def ban kaso kaso moom am nañ gàllaaj yi daal. waaye waaye ñaan yàlla mu musal la ci. Hmm. ku bëgg a tukki amul loo koy mu koy def. ku bëgg a ah, kooku moom xanaa ñaanal. mu ñëw waaw ah, waaye bu dee wàllu xaalis daal ak wërsëg moom. Mm-hmm. subhanallahi wa bihamdihi. subhanallahi wa nit ku ko saxal sax jëru sax nga fi wutal ab lim. waaw ah, subhanallahi wa bihamdihi ci sa kurus rek. waaw suñ borom dana la ubbil ay buntu xéewal fu mu foo mën a toll ci àddina. subhanallahi wa wàllu xéewal danga koy am te wàllu tera comme ko maanaam wàllu matériel àddina dalay lay yomb. bu baax a baax a baax. léegi waxtu beenu dab looy tàggoo budul tàggatoo ak kan ngay sant ka gërëm bu baax a baax a baax. waaw suñu seex sant xanaa di la sant yow rek. Hmm. def ko muy suñu tàggoo di ñaan yàlla. Uh-huh. yàlla barkeel sa liggéey ndax bëgg nañ ci sa jëmm lool ci dëggu gi uh-huh. ak itam dëgg yi ngay wax ak yéene gi nga yéene nit ñi jàmm ak dëgg te ñu ni loolu rekk nekk suñu itte uh-huh. di ñaan ci barke suñ tubaa képp koo xam ne nii suñu borom namm na sa aajo faju ci ñun yàlla ñu déggante waaw nga xam ne da di jaam bi moom yaakaaram rek la am waaye yàlla mi nga xam ne ni mooy faji aajo moom buur bu màgg la te mi ngi fi waaw di ñaan yàlla itam yàlla bu yaakaar kenn tas ki sunu jëm képp ku xool sunu jëmm ñi ba xemmem ko jël suñu numéro wooñ mhm. yàlla la suñu borom susuraal ci sa aajo ji nga am pour ñëw ci ñun te ñun loolu toujours ci loolu lañ nekk mhm. waxtu bu nekk dog yi ñuy def wala riyaada yi nekk ci wàll kurus ak yàlla lu mu ci mën a doon foofu tamit bëgg naa fa ñëw de xalwatu kilifa gu kilifa bëgg nga dugal xalwa mën na nekk daal nga xam ne ci mbiram ngay nekk bu ñuqi lu bari aajo yi di yooyu mooy ay xeetu fal président ak géew politique bi ku ci bëgg mucc ci fitna yi te àgg ci li ngay yóotu daal surtout ak remaniement am gaa yi tiit ak yooyu. c'est xalwatu. Mm-hmm. day ñaan goo xam ne nii tey dama naan la bu ñaan doonoon téléphone moom mooy code bi mooy numéro bi. Mm-hmm. da ngay woote léegi jot. xalwatu ñun li ñuy defee xalwatu. Mm-hmm. maanaam dafa ëpp sax ci aajo. dafa ëpp ci aaju. lu aaju rëy rëy rëy ci àddina. saa bu ñu duggee xalwatu riyaada ñetti fan ëpp na ci sa jëmm. ëpp na ci waaw ak lu mu mën a doon nag ci àddina. kon daal Afrique ak àddina bi yëpp président bu bëgg a faloo yëpp mën nga. lépp ci at yam ci àddina waaye daal di yombuñu ndax nit ki bu fekkee da ngaa yor ay liggéey jàmbur ak ittey jàmbur. Mm-hmm. boo bëggee boole ki ñëpp jël ittey kenn nit. day fekk mu jar ko ci yow. day fekk mu jar mm-hmm. xam nga ma la moo tax ñaare xalwatu moom bari na ñoo xam ne ni danañ ko bëgg sax ci ñun waaye dañuy wut kuñ leen booleel wala ñuy fexe ba seet luñ def ndax liñ ci maanaam nit ñi li nga leen ci li war a teg ñoom duñ ko nangoo tegoo. te xalwatu day mbir moo xam ne nii dafa dafa dafa dafa kama. dafa kama itte nu mu mën a toll ci àddina buñ la toogalee ci riyaad. Mm. ñetti fan doo ko am mukk te saafara incha allah. foofu ma jox leen conseil sëriñ si lijjanti ba ami pexe ba leen fay alal bu bari di leen duggloo xalwa léeg-léeg jox la kër nga dugg xalwa saa nga toog fa di nelaw rek di connecté wu jëmale déwén fekk caméra surveillance mu ngi lay jël da ngay génn rek dootoo jotati ka la doon wax ak yow fekk xam na ne ab tappalekat nga. moo tax dëgg moom dee ko def moo gën a wóor booy nelaw it caméra surveillance mu ngi lay jël kon sëriñ boo xase engagé xaalisu jàmbur wala nga engagé mbirum jàmbur rek dem ci ba jeex fu mu yam neex bu baax a baax a baax a baax a baax kon xalwatu daal bii pour kilifa yi la mën na nekk daal. ku ci song baax a baax ku ko bëgg insha allah boo ñu woowee wala nga ñëw ci ñun. bu ñu xamee ne sa mbir mii wàllu xalwatoo ci gën a gaaw dañ la ciy teg ci yoon. incha allah def waaw boobu nag day mel ne lu junni nit war a fay moom yow nga ak moo ko ah, ngeen bàyyi xel foofu moom ñakk wala ñoq la daal boobu pour yu mag yi la daal. léegi àggale ñi nga doon gërëm kon ah, soxna seeg njaboot ak ku ñawal tamit yëpp. ñëw sant nañ bu baax a baax daal Cheikh Niass moo ko ñëw mi ngi nekkee fii eh, eh, golf Cheikh ñas Cheikh Niass waaw bari na jàngkat yeeg waxtaankat yeeg ñëpp bari na ñoo xam moo leen di ñoo xam ne taalib suñu fàllu suñu suñu blaat ku baax la ok ah, bu ko defee ñoo ngi sant suñu am mi ñu boole di ko ñaanal suñu borom guddal fanam ndax moom dafa ma bëgg ñu yàgg muy sama xarit ba ñuy ànd doon ay tur tànk ba tey jii ba soo soog a jóge ci daara Serigne Saliou ji ba tey suñu borom boole ñu mm. fu mu mas nekk fekk naa ko fu mu mbambiloo rek fu ne fekk naa ko fa ñuy ànd daan ànd ci suñ Tuubaa muy nit koo xam nit ko am qualité la mm. nit ku bari xam-xam te baax te bëgg sëriñ bi te dëggu danga mm. koy ñaanal suñu borom yokk ko ay xéewalam te musal ko di la ñaanal nag yow itam tegtal TV yokk sa liggéey bi ba suñu borom defal la ko tele ñu mag a mag a mag. waaw boo xam ne dana dem ba di dem ci monde bépp. doon international. barki sëñ Tuubaa jërëjëf kon naan barakallah kon sëñ am Diop gërëm nañ la bu baax baax gërëm Bougane Gueye Dany ba gërëm tamit Soda mbay di la ñaanal sa papa yàlla xaare ko àjjana bu baax. Euh, nuyul ma buggaan ak soxna moom momi euh, ak waa seen TV yëpp gërëm nañ leen bu baax a baax a baax sëñ am Diop ak waa Touba TV Mbacke Faye yëpp daal sëñ am kontaan nañ waxtaan bi neex na bu baax a baax euh, yoon mujj balaa boobu ci émission bi maa ngi gërëm sama benn xarit Ousseynou Ly Allemagne Ousseynou Ly Allemagne moom suñ lépp la wax dëgg yàlla rom Cologne Euh, moom tamit bëgg nañ mu gaaw doon président de la république bu Allemagne ah. Mamy Danfan France moom it mu gaaw doon président de la république bu France moom it su nit la Sayer Fall Espagne gaaw doon président de la république bu Espagne ndax ku ku baax la gërëm tamit euh, icône international icône international di Babacar Diop borom Parcelles euh, borom Real Madrid borom Barcelone nee naa la tekkilal Vinicius neel Vinicius maa ngi koy may dédicace ak Militao ak ñoom Rodrigo maa ñoom it tamit après ñu ñëw rek bu ñëwee Espagne ànd dem defali dara Tektal TV bu baax a baax Akon International borom baax gërëm nañ tamit euh, Ibou Dieye Espagne gërëm nañ tamit euh, Malick Jité Grèce gërëm nañ El Hadj Ndiaye Germanie di partager Tektal TV bu baax a baax a baax xewal dikk loraange dakk yoon bu mujj ci biir émission bi 77 102 94 94 77 102 bi am na WhatsApp nga dis ko soxla lu mu ci mën mu def ko leen ñu bàyyi yàlla mu xam tëlewu dara te mën a lépp sëñ Cheikh Fall xataaba gërëm nañ tamit équipe technique bi àndaloon balaa boobu sëñ Fallou Mbacke Diop gërëm nañ ko ak rakkam soxna Seynab Diop ak soxna Fat Jaxate ak waa kokki gërëm nañ ko nijaay Seexu Jaxate Tafa Jaxate Maam Jaxat Jaxate Seex Omar Dieng ak Awa Awa Dieng ah, ak soxna Marème Diop ak soxna Bintu Sey ñëpp gërëm nañ leen bu baax a baax a baax a baax a baax gërëm tamit ñi bëgg Tektal TV ngeen abonné bés bés close émission bu ñëw ngeen am ko gërëm nañ Baye Massamba Diop ummi kan yaayam am saa saay Baye Massamba Diop simaay maamam mandaway magam Cheikh Abdoulaye rakkam petit sow gaw sow ak rahma boroom kër rahma petit petit moom fii ba fukki at xalaatul takk ñaareel moom concentré wu na foofu docteur Wadd boroom këru gànga Wadd moom it fii ba fukki at xalaatul takk ñaareel euh, gërëm nañ ñëpp soxna may Diop studio soxna may Diop lan nekk ci réalisation bi euh, Tektal TV tele tollu ko fii Ibrahima portable gërëm nañ ko takk na soxla euh, soxna ca ndar gaa yépp ñëwoon bég ci moom bu baax a baax a baax kon ndar yëngu woon na gërëm nañ ñëpp gaa yi Malick Faye gaaw takk ak kan moo ci des ak Pape Pape ci takk na kan moo des Mandaw takk Baye Mass takk Moux takk Abdou Khadre takk na ñëpp takk Mbappé moom dafa jàpp ne xale la ba léegi te moom ak Mbappé ba bu mag bi Mbappé ba nekk France Mbappé bi moo ko bokk kon gaawal takk xewal dikk loraa nga takk Tektal TV jërëjëf.